الأحلام أو نسب أو نسب الذكاء أو الشخصية أو معرفة الطفولة yooyu yëpp moom xoolu ko maral àqal yi wéla dig xel xewaan bi li li li li li li koy multiplier ba muy dox ba muy yëngu ba muy nangam la chonor sa yëg yëg bi ci biir gént yi ngay gént yeewu maanaam léegi dayara bi personnalité ak sa bopp yi yëpp nag yoo xam ne la da imna dana ko jàngal mën naa am dara ñëw waaye moom day ihtamma bi taxliili bi niyati shonor wa taxliili xibra moom li mu li muy gëstu dëgg moom mooy sa yëg-yëg yëg-yëg daal fi ñu toll lii lu am solo la bare na koo xam ne day gëm-gëm suñu tubaab di gëm ko bare na koo xam ne di gëm-gëm lislaam di gëm ko da caa am intérêt ba kute yëg-yëg bi nga xam ne yëg-yëg bi nga xam ne naturellement la nii nga xam ne dañu yëg boobu la ñuy wax waxu yëg bi nga xam ne da nga koo falsifié da nga koo kere waxu waxu boobu moo si am na si xadis mooy William Conte moo xam ne bi dracé siri métronome waaw non waaw ñu yumkinu an yusdira daqaatu munqasima rifqan li samani lazi yuhaddihi baaxi loolu loolu loolu ab appareil la boo xam ne moom da ko doon jéem a jëfandikoo loolu bi ko jëlee ci ci ci sëriñam ba ci ku ko jàngal ci Allemagne nga xam ne mu tàmbali li di analyser yëg-yëg bi ci ñi nga xam ne jëm nañ ak mag indi rachidin nga xamante ne di di jéem a xaaj chonor ci ay éléments yu ndaw léegi di jéem a découvrir nan la élément yooyu nan la ñuy fonctionner ba ci biir alxibar sonor ya nga xamante ne li ngay yëg expérience boobu nga nga ci nga am élément yooyu waa joo xam ne daa soxla ab junni waaye nag ki nga xam ne moom la yaakaar mu jox ko dañoo xuloo doon waaye mënut a ñàkk a dem ca moom bu demee ca moom mu war a léeg-léeg léeg-léeg mu ne muññu léeg-léeg mu bëgg a muññu waa ji xool waa lii léeg waa ji ne muññu ndax daal muññu gi mooy fàttaliku démb bu ñu xuloo muñ gi mooy day toroxloo ngir bëgg waay jox ko junni ki ki ñëw ki fekk wut démb bu ñëwee bu ñëwee xamul waa ji wut si du xam luy nii waaye waaye waa ji moom ci xuloo mu jëm daa xam ne ah su ñu ko ma kat dama bëgg ngaa mu junni dana xam ne kat muññu gi mooy xam ne moos xuloo démb bi tax muy muññu loolu muñ gi mooy daa bëgg a toroxlu ma jox ko junni élément yooyu composé moo ko élément yi mu ne kon moom nag William kon kont moomu ab alim physiologie de physiologie yaa mooy ilmu wasaa'il a'daam kon moom ci loolu ci la jël moom méthode boobu la jël bu ko tatbiq ci champ jëmm ji baaraam bu ne daa am lu muy def loxo ñëw loxo bi lépp tànk nangam lu ci nekk lépp bu àndee mooy nit benn bu ci nekk fonction bi bu su su su booloo mooy nit léegi nag anasir yooyu la la bëgg a takk si action loxo it du am solo daal tey am mécanicien bu doon bu nekkoon psychologue mën naa mën naa jël mécanique xam-xam ba ne na naa ko tabax ba mu nit ba xam dana am si tam bi loolu dara mën naa ma jox mën naa su baaxee woon baax na su waxut mu seet yee misaal tey ku mel ne man tasawuf day dund mën na maa xool nit xam xam ci moom dund bu yàgg joo xam ne dafa am xale bu sant ja ne fii dama koo gis mu nuyu ko ma ne ko ma ne ko man de dama laa sopp ngir Cheikh Moustapha mu ne ma mën a jaar jaar mu ne ko waaw Cheikh Moustapha sa maam mu ne ma waaw nayam bi ma ko gisee képp Cheikh Moustapha ba ci Cheikh Moustapha moom mu jeex sax di jaar xaw ma xaw ma ko mu doon de waaye kii moom Cheikh Moustapha la bokkal kii loolu loolu fi mu tuddee xat su toll bu su ma gisee nit war na ko jàkk maamam yi ñu ko ñëw maam ji maam ji laay gis ba noppi soog a gis maam maam ji mooy mooy ñëw nii ba ma gis maam ji maam ji duggaat léegi moom mu mu soog moo tax ni may xam ne nit aka metti aka metti aka metti mooy xam-xam yi woo xam ne moom léeg-léeg ma xam nit xam yi woo xam ne damay ruus yàlla ba mu xam ne xam naa mooy xam ba rus ba rus ne yàlla mu xam ne xam naa ko loolu loolu yi wax xas la ñuy wax wala su fekkee basiira basiira xas sax moom presque bi la waaye dëgg def sax mooy basiira maanaam loo loo ne jekk gis la ko jiitu soo ko gis moom loolu ay yëf la ci yow yoo xam ne bu def su su fekkee nga ne yow ay mën a su ko yow mën nga cee génne waat yeneen yoo xam ne ñoom ñi xamuñu ko waaw ah ilmun wahbi la la duni yi wala naaw mel mel naa ma yàlla koy maye léegi li sa question bi mooy nuñ koy amee wa taqullaha wa yu'allimukumullah fexeel ba mooy tuuti tere yëpp rek dem di la katal loo ca dolli ci jaamu yàlla rek yàlla ubbi bi wa taqullaa yàlla xam-xam tigi saar bi bi ma koy gëstu siiñ yooyu damaa xool damaa tëdd siiñ yi ñëw ñëw mu ñëw ñu war ma siiñ yi ne ma lii moom la te man ci bitti xamu léegi nag ma ne waaw man lii moom su su ma ko waxee kon ba ma woo sas bala benn azar ne ko léegi yow siiñ yi lu mu doon mu ko mu ne mu ne ma xamu ma ne est na naw génn nga xam ne li ngay xam dañ lay indil dara tegal la ko ñu ne lii de. loolu neex na de. loolu neex na de ñu. waaye yombut xam boobu neex na. waaye yombut. ah ah déedéet ah déedéet lépp lépp a yomb. yombut dara yombut. lu yàlla yombal rek ka yomb. yombut defal inna allah ala kulli shay'in man man jafe yomb xaw ma ko li ma xam mooy lu yàlla yombal ba am xel lu ma bëgg rek dama ko ñaan yàlla di ko xaar nag di ko xaar du ma yàggam di kat yàlla moom saa bu ko neexee andi ko waaye am naa defen jot bu baax ne dama ko jox bu dee gën na fi toll lépp lu ma yàlla xañ lu ma bëgg te aw ma ko rek ginnaaw ba yàlla dana ma dana ma woon ayib lu ma lu may wut te aw ma ko yàlla dana ma woon ayib ne ma ne ma boo ko amoon nii lay mel ma sant lool ci ci ñàkk ko loolu looy tawfeex la moom. ilaah ilaah tawfeex la ilaah ilaah.
dina gaaw a jëriñ.
ilaah ilaah.
bu ngeen yàq.
ilaah am na ilaah. bu dee yàq bu dee yàq Oustaz Oustaz waaw.
ku mel ne Kant Kant moom daa mel ne axlaaq da koo kii lool. Emmanuel Kant. axlaaq moom nu kii ak axlaaq.
sukut moom kay maanaam philosophe la ci moom bu tax a déglu ci ajjawaan yi waaw ndax épistémologie naqdul àql la àql li muy xam lu tax ñu ne xel lu lu nanguwul jëlawul maanaam mooy xel moomu kan ma ko jox sulta bi ku jàmbar la naqdu ala alaqulul amali yi nag alaqulul xaalis mooy xel alaqulul amali ci lay wax léegi sun jikko yi fan la tëru fan la tëru loolu am solo kan kilifa la am na am na benn waay boo wax ne ne koy taarixal ne ne indi baat bi benn waay bu dikkoon ak moom wetu fu muy jëndee ab journal nee na montaram la defoon kan heure bi kan si di jënd si journal saa su ko séenee xam ne heure bi jot na heure heure ba képp la ñëw mun dabit la xaaye mun dabit lu am solo la ci indi baat sa sa salaam yi wax ne ne xaw ma professeur bi leen jàng jàngal Spinoza ci Maroc nee na mooy kaas bi mu jëkk heure bi buy jot mu ci budkaat heure bi jotee mu ci budkaat xam nga loolu loolu ci ci nit ñi la daa am nit nit nit ñoo xam ne dañoo daal dañoo am indibaat maanaam si lépp day tegu ci ay normes bi ma bi si soog a ñëw fii da da damaa jóge fii Darou Khoudoss di ñëw fii ci école bi di di di jël taxi sàq mi laa jël sàq maa jóge ñëw fii jël taxi boo ñëwee fekk école bi dugg ma taxaw ba sonn mujj léegi may dox ginnaaw bi ma jël taxi moom boo ñëwee fekk yooyu ma jël te te may dox boo ñëwee doo fekk école bi ubbi mujj may tardé damay toog dañu fekk ubbi na ab école boo xam ne idaara bu ubbiwul huit heures moins quart ordinateur ñoom ñëw bu ubbi ndax tabshura boo soxla fekk mot loolu indi baat la indi baat waaye noonu ñu xamul loolu ñu xamul loolu kon léegi kon xaawala an yakuna an yukawwina nizaaman bahsiyan ala qiraari ma fi kimya wa tabia ginnaaw moom ab médecin la médecine ci la jàng nii waaye médecine nag du du du nit médecine al badal la moom la moom la jàng badal waaye jàngul naf moom lu lay metti lu nangam tàng yu sedd loolu lay wax moom bokk du nit mu ne kon tawasala ila istiftaan istiftaan nag lu am solo la mën xëj la bu am solo beneen mën xëj mënu koo wutul doote ne am na ay ayib وهي أفضل طريقة لتحليل الخبرة الشعورية أي مبدأ الملاحظة الساكية استفتان موي دغاي نيو ci psychologue mu tegal mu ne tëddal ci lal bi lal lal bu nooy tëdd ci lal lal bu nooy clim bi tàkk mu ne la léegi waxal rek del wax loo xaar wax ko bul làq dara lépp loo wax nag du du génn fii ci salle bi bureau bi du ko génn ngay wax nangam nangam waaye ji dafa tiit boo fekk di tiit lool ndekete daa njaaloo te jàpp te ginnaaw dañ ne ko njaaloo sa war na jëm mu jàq lool tax mu indi ko problème waaye ji ko waxal lépp looy wax wax rek maanaam nga wax lekk naa ceeb démb ceeb bu jëm waaye ñoo ko de di mën a ci yow ki ci ma lekkoon moo tax na bu mu ma sol kew daal mu xonq man nag bu mu xonq xonq man kiiwuma ma man bu gula ma gën neex ndax gula bi moom moo solee damay féex di wax rek waa ji bind am na loo xam ne su ko waxee dana xam ne fii la ñu wax man ne bis nag maa ngi génn nag benn xale bu jigéen boo xam ne daal si seytaane mu nax de daan teg teg ko ba xam ndax amul ko fi nekk waa ji moom së sëgg ci kii bi du du ko xool sëgg yoroo ko kayam di kii waaw jigéen ñi nag dama kii daal di yàlla nag kii naa de for naa kii de waa ji teg ko daan ne daan ne yàlla naa daal di yóbbu alxuraan de waa ji xam ne kon problème bi tëji point bi la ñu ko baax daal di toog bàyyi ko ba mu dal léegi mu ne ko ah yow sëñ bi yow li nga def dara loolu da ngaa njëloo dara de li nga seet li nga li nga dimanche l'islam psychologue bii nag kon daa war a jàng diine ndax problématique bi ci diine la bu dee tubaab la jàng du du du du du xam ba xam de ah salaay salaam am na ko ñu dëkk ca Madina ta mu mën a war a ca jàkka ja ne ko man damaa njëloo mu ne ko déedéet ah man da da da ca kaw moom rek. parce que man nanguwu ko mu ne ko dama njaal sinon Omar mu tàng ma ñu fekkal ko ci ca Madina ne ci jàkka ja ne ko dama dama ñoroo mu fil gimiñ gi ñoroo ah da nga doon ko moom rek loolu la ñuy tuddee ci ci ci usul fiq wala fiq bu ñu ko di waaye udru ul xawma lan alxudura bi subhaan parce que ma ko wax maanaam léegi ku ñu war a àtte àtte gëjal lay wér mën a am def leen ko nga ne ko waaye sa fem ko moo waaj ah yoo xam naa ne yow de yow mii ah yoo xam ne yow xamaa daal dara xamaa dara tudd ci koom rek ah waaye am na leen bëri ah waaye loolu loolu dara léegi nag xoolal alxuraan waxam na leer inna alxasanaat yusuf na si yar njëw demal boo demee si kër jàppal ba sell julli fexeel ba guddi gu jot na nga julli téeméer ak ñetti fan soo ko defee yàlla jégal la waaye ji xamuñ dara de waaye alxuraan la di inna xasana juma si yaat ñetti téeméer rakka mën na ko mën na ko kii mu jub gis nga nag fexe ba wala yuy neeñu maanaam léegi mag ñi neeñu téye ci jaar ak jaar am néew bu njub nga téye ci jaar ga dana far bakkaaru njaaro maam na ko def kooku na nga fonk loolu ah ah waaw nga fonk loolu loolu la léegi it sëñ boo gis na nga fexe ba bu bokk moom ak julli xot bu samaan ku bokk moom ak julli mën naa far baka bakkaaru yàlla waa jaari féex daal di wér kooku nag psychologue bu jàng diine moo ko man moo tax noonu sëriñ si sëriñ si woo ay waay sëriñ si bu ñu xamoon yàlla li ñuy dimbale ak ñu baax waay sëriñ bi wut école boo xam ne dañ mën a lay jàngale fi elmono fi al islami yi problème yi ñu am ñu mën di ko yëntil waaye jant toog ndax xamul lii moom ndax xam jaral moom moom xamul jaral oh ndax ay waay ay waay kon la sati mu ko waa ji moom mooy wax di wax di wax ba ñu xam ne loolu lañ tuddee okku daal loolu ko tiimle woon moom yow complexe te da ngay dégg ñaan la diw da diw da dafa complexe si nangam complexe mooy okku da nafsiya waa ji daa amul gestionnaire da ko bëgg bëgg bëgg na gestionnaire mënu ko am bu gisee ko am gestionnaire day tiit dafa am complexe dafa am okku da nafsiya ci gestionnaire maanaam moom xel mi gestionnaire ci nekk fekk amu ko xel mi du du ko yàq kooku oq oq da na nafsiye la mooy complexe kon kon léegi oq da boobu pour ñu fecci ko fi tollu waa ji bi bi commencé wax loolu rek féex na pour ñu fecci ko nag psychologue bi moo koy bàyyi mu waxal boppam ah psychologue bi mënu ko mënu mënut a xam ne lii la léegi nag kon moom la ñu tuddee almulaaxa satiya moom moom ci boppam mooy génn boppam mooy taxaw seetlu ci ak dundam ba àgg foo xam ne dañu xam ne fii kat faara bi dafa am koo xamante ne xale boo xam ne dafa yoggooral al intiwa al al intiwa yi ak wér di la xale bu yoggooral day bero fee bero borom yi du nangoo toog ñoom léegi nag ñu ñëw gis ko ne wax suñu xale bi day dafa yoggooral mu ne léegi mba mba ko jël teg ko ci am mbaam mbaamu ndaw ànd ak moom ñu ak ak bokk yi ñi ñuy wër gox bi kër gu kër maanaam mbaam mi di di dox ba ci ak kër xale bi daal di féex mu ko mu mu avancé xale bi dafa di mu dëppaat ñëw ba ci kër gi xale bi daal di féex mu demaat xale bi yokkuram mu ne baax baax dem daal di ne nañu mën a yëg kër gii ndax amut xale bu jigéen bi rek ab ab xiig ab jàng na ndax ñëw bi ñu ne ko ah kay mu ne nañ ko nañ ko ko may ñu may ko moom mu daal wér xam nga ci aaday naar des na de des na de loolu bëgg bëgg tësu suñu aada naar boo séeree jigéen ba bëgg ko ñi mu woo ko wax bàyyi ne ko dama bëgg waaye Fatima mii li mu njëkk wax mooy foo ko gisee léegi nag am problème moom foo ko gisee foo ko gisee sama sama doom ji kooku problème la léegi yow boo bëggee ndaw si fa ngay jaar ba wax ko moom problème nga am yow loolu loolu nag moo indi si xale bi okku da bëgg na ndaw si te ñi wu koo wax ay bokkam fara bi moom kon yëg na ne ko kon daal lenn dong moo war a moom la waa di war a ci kër gi mooy kon léegi so ndax muy bi ñu ne ko muy bi mu ne ko nañ ko may ñu may ko mu daal di wér kooku mooy psychologue pire ku mel ne jiibu jaxate ku am solo maa ngi koy wax ku mën a déglu la mën naa baax yàlla jiibu jaxate fonk naa ko lool ndax li mu xam ba nga si mën koo wax ci ci ci wàllu moomu yëpp day wàcc ba tolloog yow ku am solo la kon léegi al mulaaxasa azzaatiya sa bopp yow yaa yaa ma koy wax gis naa ci British Council maanaam léegi mooy surtout maanaam léegi centre bi jàngale anglais nga xam ne anglais anglais ko moom soo ñëwee soo ñëwee ñu war la def test ba xam classe boo jëm boo ñëwee ra- rang ba si yaa ngi nuyu na nga def foo jógee nga ne ko bu sangam lu loo loo dugg boo boo bëggee toog ñeent baax man a waxtaan wi ñuy wax ak yow bu dee mën ngaa tontu lu wér xam nañ xam nañ fa nga jëm di nga boo boobu testé testé bu yomb la maanaam moom comme toog boo seegee bi wax ak yow ba ba nga toog ñeent baax loolu loolu ak ñëw la maanaam léegi kalimaat al mafatih yi ñu soxla bu dee am nga ko te mën koo istimaal yow kon yow maanaam maanaam léegi premier degré bi yow weesu nga ko kon yow bu ci topp kon xanaa ba ngay def bu ñu dee defal langage mooy mu xaadisa dañuy def groupe toog ñu bind fii asso misaal léegi ne waxtaan leen ci marché ba wala nun nun suñu bopp maanaam kenn jàngal yi bi si gëntal kenn doon jàngal suñ doon loolu loolu yéeme la maanaam yow yaa ngi jàngal sa bopp yow xale boobu jóge Turki wax na ma ko ne ma Turki ustaas bi day ñëw bind maraaj jaay darsa bi dem boo léegi mu ne eh danaan danaan danaan darsa baa ngi nii yéen ma maraaj yéen damay nga gëstu jóg darsa bi tey kat ma ne léegi al istibtaan bind ko fii andi leen téere yi nga xam ne mu ci wax den du ma gëstu ko usboo bi ñëw kenn ci yéen mooy def muhadara bi man du ko jàngale loolu loolu technique la nga nga nga xam ne léegi élève bi léegi day gëstu ci moom forcément day gëstu jox ko rek ceeb bi noonu nag comme li suñu préfet yi def tari dañu lay baramaja xaaral ba nga xoolal Ibnu Qayyim xoolal Ibnu Taymiyya xam nga ko lépp nag Ibnu Taymiyya nee na. Ibnu Malik. lii bokkal bokkal Ibnu Taymiyya mooy kan moom. mooy kan rahimahullah mooy kan. mooy kan. mooy kan moom. waaw ma ne Ibnu Asri yi la woo bii ati. waaw Ibnu Asri yi woo bii ati de. waaye dafa fàtte na ko de ah. loolu loolu bokk bokk na ci li ñu tan kon léegi si tan kon léegi lu am njëriñ la mu ne innama hada nawu benn dirasa yusamma bil binaia non non dirasa boo xamante ne moom istibtaan lay moom lay tëmbal nii anasir awaliya lil xibra shuriya moom lay dirasa loolu la ñu tuddee al al binaia te ba naaw riwaayat al mutahida nangam nangam al ijtihaadaat yi nga xam ne moom lañ ko moom lañ ko moom moom lañ ko def loolu daal ne woon naa am na problème nag bu njëkk ba mooy amalitu istibtaan taqatahu amali li shor su ma ne la bàyyikool di di xalaat fu ñu toll yow da da ngay départ c'est loolu da ngay départ yow su bopp ñu toll yaay yaay départ dem di di nga toogee ci waxaguma dara yaa ngi xaaj yow. xam nga moom ceeb diw daal ceeb bi la yaa ngi xaar bu bañ rek léegi nag léegi nag mën ngaa nag wax wax léegi nag léegi du la neex rek léegi fi dool da da ngay tànn fooy fooy tàmbale maanaam fi dool yow léegi amatoo xor yi kaamila day am fooy tàmbale mën naa am sax la nga tëb moo ma gënal léegi bu dee ci suñu Sénégal bi Bawol muy néew léegi ba istaftaar psychologue bi ne la waxal ngay wax ba àgg ci njaaloo nga nga def ñu xool ko seen waay su ma waxee njaaloo kon waa ji dama ko ci gën a wax ko nga di sëkk rek nii doo doo wax njaaloo waa ji léegi noonu noonu nu muy xamee ci joxla bi ndax ndax su su problème noonu su problème mooy kenn wóolul kenn voilà yow doo wóolu médecin bi du ko wóolu psychologue bi doo du ko wóolu bi ndax mën naa génn naan koy seen seen waa ji ak xaalam bu rëy bi ak bor bi ñu jëppale si kaw bureau bi ñaareel ba dama ñaareel yow te psychologue bi ci xasam bi mu doon giñ mooy sëñ bi gën a si kay ab psychologue ab médecin sañ katum néew dafa xaraam ci moom muy wax lam bi ak soxna soxna jëkkër jabar médecin bi psychologue bi sañ katum néew salaay salaam da wut la wax moom seen gëtum néew lu lu tax wut la wax am na ñoo xam ne buñ faatoo yàlla dër bi arak sopp jëmm ji aus billah ñi seen réew léegi gis koo xam ne da- dafa alko yàlla sopp jëmm ji léegi nag kooka xa- xaraam na moom moo taxoon fuqaha yi doon wax naan bu góor jigéen bu ñu ku ñu ku jëkk faatu ñaar wéri jënd yi maanaam kenn kaa war a sang morom bi jëkkër moo war a sang jabar jabar moo war a sang jëkkër ndax ñoom sutura si ñu amoon ginnaaw ginnaaw yow boo nee sama jëkkër jële bopp ba dañ ko def bopp mbaam jox la ñu ree wala nga moom denoon na bi boo nee sama jabar jële ko soppal bopp mbaam yow la ñuy ree dag yow da nga da nga ko làq yow ngir sa sutura islam ginnaaw yéen a bokk yéen teraanga ji boo ko yàqee ñu yàqule léegi kon islam la sang ko loolu loolu nag bari nañ ko waaye lu wóor gi la mbokk mi gën a jege bu ñu ëmbul jabar di kër jabar ki gën a jege néew bi na ko sang ndax kooku suturaam mooy sutura si néew loolu nag sutura lu am solo la nit su su fi bàyyi koo ay bagaasam al aqrab ci moom al aqrab rakkam magam na na jëkk ca bagaas yi lu mu ca fekk lu dul noonu mu mën koo lakk ku ñuy wax mën nañ faal waaye mbokk mi kii mii la ndey faal mën nañ faal nekkoon keer demoon Arabie Saoudite di umra ci umaaj daanaka si si si saxam si si Bachir su su su ma fa paa paatoo na nga dugg ci sama néeg ubbi sama bagage yëpp lépp lu wute gën lakk ko waaye xaar bi dama yéem sur kilifa kilifa su fi bàyyi koo loolu jaroon na nañ woo doomi bàjjenam doomi nijaayam tëj leen ci ab néeg ñu ubbi bagage ba xam nit nit andil na ma bagage yi bàyyam ma gis si këyit woo xam ne dama ko denc maanaam këyit wa ab xaatim la bu ñu def di ca ñaan gagné loterie France nangami million six six cent trois cent million xuma xuma six cent loola la sëñ bay ñaan maanaam léegi xaatim ba allahu la allahu jë allahu xaatim ba basmala la allahu jë so jaraala bi allahu jë ci ko bind loterie France nangam nangami million dama ko denc ndax dama ragal doom yi su su ko gisee ñàkk yaakaar ca bay fi ñu toll loola baaxoon na loolu ay ay mag yu jege bàyyam jëkk ci këyit bi kon kon loolu kon lu lu am solo la taxatan suuna bi ci laa nekkoon day dagg day dagg ni suuna biy doxee ak istibtaan yu soppi bu tax a yoroon fi fi xaari suuna la su ma su ma nee la tàmbalee léegi da da ngay concentré xam nga yow ñëwoon nii di toog nii di wax si sa bopp bokkut ak may la may la waxal ca kaw xam nga wax sa bopp moom xam ma ne ah xanaa kon kon kenn kenn déglu di wax rek di wax rek kenn déglu ma waaye bu bu dee dañuy wax ca kaw nag yaakaar naa ah yii wa wa waa ji kat psychologue bi doomam ji doomam ji réeroon fan yii maa ko sàccoon jaay ko ñu wax ba jàgg ah waa ji mu ko waxee bari ko def dara waaw du ko kon ah psychologue bi lay seet doomam ji ko réer yaa ko jël jaay ko jaay ko ay bandi da nga ko wax loolu problème la loolu problème la kon si tam am am na problème ndax doo mën a wax lépp na taa jël baaxee si ne feebar yi si taan texe mu ëppatu bay ab psychologue bu ñëwoon defal kii di jàll sax bind jóg am ko dikkaat defaat ab jàll sax résultat yi du bokk lu ko waral mu wax te yaar yi bëri bokk données yi nga xam ne moom la waa ji génne yëpp di ko génne du bokk misaal tey ku mel ne man ku may laaj ci xam-xam boo ma laajee dara su ma la waxee ba noppi nga ne ma oustaz waxaat ko ma bind ko su ma ko dee waxaat leneen lay waxaat ak suubu yu ibnu waxti man li ma xam léegi lay wax waxuma li ma xam jëm loo ma laaj bu bu ma noppee bu ma laajaatee li li fi teew lay wax man xaw ma li jeex na man. saakare bi day daal di faax leneen ñu waat bu ñu yàq waaye man foofu ba tey man tëri ma ko kooku ko xam kon kooku kooku am na problème boo xamante ne moom li li mu xam léegi lay wax xamut la la mu xamul diw kon amali istibtaan la seen amalie bu mawdu waaye nekkul loo xamante ne luñ maa làmb nit ko la moom waa ji li muy wax ban preuve laa am ci dëgg la li lim ne da- dafa jaaroo ndax dëgg dëgg dafa jaaroo ndax ndax rek bëgguta lay moom kër kër ga day day yuuxu rek nangu rek jàngi day yuuxu di yuuxu rek duñ ko dal la mu dal mu toog waaye saa bu heure jotee jàng jotee day yuuxu ndekete xam nga ndekete kon moom ba mu njaaloo ba muy jàngi ci la njaaloo ndaw sa xam nga kon léegi heure jàng bi da da dafay fàttali waaye ndax dëgg la ndax dina xale bi day toppale daa koy jàng fépp mu ne saa bu heure jàng jàng jotee mu yuuxu di dëpp dëpp na fa la moom maa toog léegi problème boobu mooy loolu léegi waa ji ak ñawam ci la mën a xamee ak ñawam ñaw waa ji bu dee ñëwut day tali du mën a xam dëgg ba xam kii tax am déet xanaa ma ko xool si bàyyi la kes bi ma daal si okk si mu ñëw kon kon moom léegi mënee suta dëgg-dëgg xam ba xam réellement li muy wax nii mooy li am wala am na lu ci laxasu mag ñi daara ja da ngay ñëw dem ci àll ba jëf fa si li léxoor ñëw sëriñ daara bi mel na daa fekk jiw ja dañoo mas a toog toog Madina ak ak jullit ñi benn xale bu xale bu xorom la ay ak gone di jooy mu laaj ko mu doon lu mu doon mu ne ko man ay dàllam da koo réer ñu ne ñu ne seen seen si ñu ko ma daal di ne ma daal di ne ana diw ñu ne nañ woo diw ñu woo diw mu ñëw ma ne ko da xale boobu daal daal di anamu si si si daal sama ne ah jërëjëf ah léegi moom kay ma ne ko ah kay fu mu ne mu daal di man jël ma ko de ma ne ko xool ma xel kii ki xale bi ci bitti su ko wàññi dee sànni fu mu ko sànni jëm kees gi sama keesu bàyyi foofu foofu foofu foofu day jàpp ne su ko fa sànnee kenn koo gis kon léegi xale bi kon dana ñàkk dalam ma ne nag nekk ko seet ñu seet ko fekk ko fa xoolal dañuy wax ne am sàcc sooy dox am xelam ngay yor doo yor sa sam xel sàcc bi kat mi ngi daw nii xam naa ne xam naa jiw déedéet déedéet sàcc bi sàcc bi ginnaaw xam na ne ko topp ñu ñu toppal léegi xale bi boo ko boo ko dee seet booy gëstu booy gëstuwaay ji malaat bi du du doo jëfandikoo sam xel yow xelam nga jëm am xelam li muy wax da nga calcul li li muy wax am na loo xam ne xam naa wowu ko am na loo xam ne da koo wax ngeen laq ko naka kon kon léegi yow toppal xel moom loolu nag ak ak ñaw la ak ñaw dañoo toog Madina ak gàmmu sama lamp ko gisuma ko may see lamp bi anam boobu ko raw bu ma lamp bi léegi am ku jóge ci wane ne yëpp lamp ma ne suñu daal kee de sama lamp bi de mooy ne ma ne ah déedéet ah kee xanaa moo ko moo moo ko mu koy ma ne ko déedéet sama lamp de waaye ñu ñëw teg lamp bi ci façon gi daal di dem ma ne ko suñ bi xam nga li li tax ma ne la lamp baax Séné Sénégal bi bool-bool bi amut xelam jëm ci dëkkub kaw bu amut courant muy bale ab lamp amut loolu man mi am xel mi man xam nga loolu coono la yóbbu lamp rek coono bi. waaye ji moom day def moom bu amul lamp am bu amee lamp am na su amul mu kii ab rek yoon nuyu si ma ne ko ci laa xamee ne moom moomu ko kon loolu loolu ak ñaw la ak ñaw xale ma jaxati kala te di laa anhu daa am ñu ñu fa ñëw di di jàmbat ku dénkoon ab sàmm xaw na sàmm bare ne ko dénkoon ñu ñëw di ko wér xale bi nga def kala daal ne ku leen sere woon waaye jël baax kenn kenn jëlewul de waaye am na ak garab garab ga gañ ko doon waxta wax waxtaane garab bu day mooñ mooy sere boobu ku sere la bu daal di ne bu daal ne ko demal ca ca garab ga nga wutal ma ca aw xob andi daal di jël ci des sàmm bi dugal ci ab néeg di ko ganale ganale ko ba mu ba mu fàtte problème mu ñëw ko nag ah waaye waaye an sa waay ji ñëw ko nag ñoo bu dee bu dee bu dee garab garab ga ma xam ne ñoo du ñëw ndax fàtte na problème bi waaye jeex moom waaye leer loolu loolu ak ñaw la xale bi daan gala ak ñaw comme suñu fuqaraa yi comme service yi tari moom moom daw tari moom moom xel na lay wax xel na xam nga am na tuddee alaqalil fiqhiya xam-xam bi mu yor am na benn benn xalaatiinu ci juddoo moom ci lay at xam nga xam nga ku ne xam ne dafa xam ne dañ ne ahadis yi ayat yi mahduda la amal ahdaasu xayru mahdud kon léegi mënu xëyee ko mu mu daal mu di àtte ko mais kon waaw léegi am fii nag bi ñëw nii moo gën a am njëriñ ci ñun Sénégal al lugatu laa tuxabiru bi diqa ani fikr Sénégal da ngay ñëw ne wéréd yi ci ñu ñu ci ñu ci bu see muy laaj toog waaw yow loo dal yow nanaa ko nanaa ko sama bopp métti bopp métti sama yaram wi daal day tàng tàng na tàng tàng tàngoo moom xamul xamul bari tàng waaw damay wàccu it maanaam li ngay lakk xamul benn seen Sénégal médecin bi xamul li ngay lakk ñaareel bi bu noppee li muy lakk moom suñ bi lu ñu tardé di mën a égal zéro di égal zéro yow booy waxtu médecin bi xamul li wax damaa dem Kaolack ca hôpital ko ma lan soldat yi sama bëñ bu daan metti ma ma ko fay ma ko fay faj ko ma dem yàlla mi bindal xoolal lu jëkk yi mooy waaye médecin bi dama da ngay jël aspirine bu métti la aspirine ngay jël tam ko ji nde ndekete moom dafay lakk léegi ma dem dikkaat médecin bi ñëw yow waaye yow li ma gën def ma aspirine et puis foofu dafay lakk ma ne ko kii di ko wax mu daal di muñ mu jeex ma di muñ de mu jeex léegi ma dem ca waa ji ma war a bindal naa mu naan nii wax waaw bu la bu bu la ma ne ko am na lu ñuy wax bulu mati mu ne waaw bulu aw bulu mari dañ bind médecin bi xamul xamul lu bind laa ilaha illallah xamul lu bind moom mu jeex mu jeex laa ilaha illallah médecin bi xamul lu bind moom xamul naan nii bula bula bula ma ne ko ah man am na lu ñuy wax bulu mati xam nga bulu madine la man man man bulu madine laa xamoon ca ba may tu tànk ma ne ko am na lu ñuy wax bulu madine mu ne bulu madine daal di bind léegi ma ne kay diwaan léegi man léegi lu lu lu lu kay lu lu jëy maa ko wax de oh al luxa al luxa fi dal mun bokk na ci li li ñu tardeel si isaam si si ba jour nee na démocratie bi li ko tardeel Sénégal parlement bi député yi ñoom mënuñoo kaas dara ndax mënuñoo lakk France yu amul yàq moo tax ñoom it rusul ñoo wax démocratie bi li ko tardeel hôpital bi médecin bi xamul li ngay wax xamoo li muy wax mu jeex kon an lu xam ndax yu xoolal ba borom xam-xam bii wax dem na sa sa samay bët bët laa doon seetlu fii ci clinique sàngam fii ci Touba ma dem waa ji bi jël ma rajo 35000 la nangam defal ma ordonnance këy bu rëy bind bind bind bind ba mu bëri ba dem kër gi man xaw ma dara ndax mbind mi nii xaw ma dara de man mënu ko lire ma ne ma ne sëñ diw sàngam ma ne ko ma daal lii xaw ma lu mu doon waaye xam naa ne lii du moom yëg-yëg bi ma am mooy ne ma lii baxu léegi wo wol ma médecin mu ne ma léegi dem fa kay ma ma dem fa bi ma dikkee ñu dugg ci bureau bi ma dikk ko ne ko man ne ko man maa ngi def filo fi filo laa def daa daa sol mbubb yi rek moom mu jàkkaar ne ak góor la filo waaye da tiit waaw yow waaw waaye waxoon na ko ne ne ne war na ko na nga moytu malade yi yi fi ñëw bokk bokkuñu malade bu jàng daa moom ak malade bu jëm kukki kukki kukki bu jàng daa moom xib ku jëm la ilaha illallah xool daa koy xool ne ma yi baaxul da yàq bët ordonnance bi mu ne baaxul da yàq bët la ilaha illallah te kat xaw ma fukk junni ak juróom-ñaar la moom la kii bii war a jàkkat weer yi yi muy war yi mooy xam ne fukk ñoom gënoon xabar yàqu aussi aussi bi daal
kon dama lor
waaw waaw to- toppee ji ji ji ma yàlla jox ba nga xool kii bi xam ne li wérul sa sa benn yaay ju ndaw dañoo tase ci code ci seen jeex bi mu yor ordonnance bu foo foo jógee maa ngi jógee Ndamar ah yow mënu woon yow yaa ngi dëkk fii tey mënoo wane dem dem jëlatu mu fii ma ne ko ma xool ordonnance bi ma xool ko mu bind lu bëree bëri ma ne ma ne ko xaw ma dara de waaye lii dëru la xaw ma dara de jaaral fii ci docteur Mbengue nga nga nga wan ko ko man ma war ko doon docteur Mbengue ne ko daal de ne ko lii lii day moom biir bi dañuy dañ ne lu leen jiw maanaam daal waaye ji xamul day bind rek moom joxaat ma ne ko man man man xamu ko waaye yëg-yëg bi ma am lii moom dëru la waaw léegi sëñ bi nag lu sëñ bi lu luy loolu moo tax moo tax njàng mi war ngeen war ci sonn faqih bi xamul dara Sénégal sëriñ bi xamul dara médecin bi xamul dara maçon bi xamul dara min maa mun kenn xamul dara xam nga xam nga lu ko waral waaw dañoo joxul ak lu ne àqam waaw waaw
kon jàng leen bu baax bu bul tar nekk kon al afraadu yaxtalifuuna fi qudratihim fi taxbiiri an shoorihim maanaam nit ki am na ma exprimé wu yombul am na ko xam ne mënut a exprimé wu mënut a mënut a wax li muy yëg am na yow yow mi koy déglu soo mënut a xam kàll yi doo mën a xam doo ko mën mën a faj xoolal xoolal ci ci médecine dañ da wax ne estomac bokk na ci li li fa joxe xaalis bari nga am asma nafsiya am estomac fi doolu ba demoon hôpital li li doon yoon ne ma ne damaa am estomac li li li ma la ci ci ci def mooy jubbale ca psychologue ba moom ba xam moom xaala nafsiya moo andi wéradi gi wala fi doolu am na am am na wéradi yoo xamante ne xaala nafsiya la xam nga léegi médecine nga wax naa li li muy faj mooy albadal moom léegi saahir bi wax saahir bi phénomène bi tàng yaram bu tàng yu sedd da ngay gis fii ñu ne kat diw daa abiram ñu yóbbu ko hôpital Fann ñu koy jox doom yi ñu koy nelawloo may leen fi ñu toll ñoom médecin bi xamuñ ci dara médecin bi li li mu xam mooy ginnaaw day tëbëk a dal naa ko jox garab boo xamante ne day sollu ak daay maanaam duutu mën a yóbbu bu ñu lay piqûre rek nga tàmbali nag nii du ko mën dara di nelaw di nelaw bu yeewoo xanaa loo loola mën koo mën médecin yi xamuñu loolu bi waaye médecin bi Sénégal lu tax ñoo am ay ñaankat ñu bëgg a jot ci maam bu ñëwee sa ñaankat bi ñaan médecin bi bu dul lekk médecin bi di ko su soli yi ay butéel ñaar yëpp xam nga badan bi moo sonn lekkul waaye li tax badan bi sonn rab la kii ñaan mooy ñaan mooy dàq rab bi kii defar yaram bi defar ko ñaar yu yu bokkul la africain bi lu tax suñu hôpital yi mun ñoo am ñaar ñu la sama jom taxaw la